wajhal lisaani wa qalbi saakirayka mahan xindal mamaati mahan imaani yallaahu wajhal lisaani wa qalbi saakirayka mahan xindal mamaati mahan imaani yallaahu barke borom Tuubaa mbokki julli yi mbokki taalibe yi ñëw leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen jéggulu bu baax te di leen balaq di leen balaq ñaan yàlla suñu boom dafa ñu tawféex ak taysiir te ñaan as Cheikh Mouhamadul Muntaxa di xalifa sénéral de murit suñu boroom guddalu fanam te yokk wér-gi-yaramam ci jëmmam ak mbooleem képp koo xam ne rek aju nga ci sëriñ bi rawatina ngay ab jullit di jégalu bu baax tamit di doog ngànt ci leeral yi nga xam ne am na yéene leeral ko fi ànd kook suñu mbokk yu baax yi ñu nekkal ci jotaay bi muy jotaay boo xam ne jotaay bu riis la bu am solo ndax li tax mu riis am solo lépp day sëriñ bi ñu feggoog suñu jëwrin suñu mbokkoom daara suñu Moustapha suran ak suñu meleen mbokkum daara mu nekk ci suñu loxo càmmoñ suñu Baye Cheikh Mbuub ak sëriñ maam seex Mbay ak soxna Sagar Jaw Caw ñu war a ànd ak ñoom ci benn waxtaan woo xam ne ñu ngi ko jëmale ci lenn ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi dénk nañu ko te jiital ci suñu jëwrin muy soxna maam ami Mbàkke al Muntaxa ñu ngi koy siyaare bu baax di ko jox waayam di siyaare tamit jëwriñu daara ji e, di suñu kilifa di suñu lépp muy bàyyi daam suran di jëwriñu daara ji ñu nekk di ko jox wàccuwaayam bu baax ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne nekk nañ ci jotaay bi yëpp rek di leen siyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu ñëwoon ak yéen ci benn liggéey boo xam ne lenn la ci rek ci liggéeyu daayira soppee Cheikh Mamadou Mountakha xëy na bala dugg ci liggéey bi dañuy jox suñu jëwriñ kenn ku ci nekk rek mu mu nuyoo su ko defee ñu mën tàmbali liggéey bi ñu jiital ci euh, jëwriñ ji nga xam ne moo toog suñu wetu càmmooñ di sëñ Baye Cheikh Mbuub nga xam ne daayira soppee Cheikh Mamadou Mountakha moom mooy vice président bi topp ci Baye Saliou Souran moom ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàcc waayam di ñaan yal na ko suñu borom téeñal wooye falal ko yan bi bu baax a baax fi ñu tàmbalee liggéey bi mooy dañuy jox Serigne Baye Saliou Baye Seex Mbuub euh, moom mi nga xam ne moo nekk fële ca dakaar ndax na nga xam ne liggéey bi tamit ay section la ak ay sous section fenn fu ci nekk ay membre a nga fa am ñu leen fa jiite waaye ñii toog nañ jàpp ne ñooy léppi liggéey bi ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi Euh, ñu jox Baye Cheikh Mbuub moom mi nga xam ne moom moo taxaw euh, palaasu jëwriñ ci palaato bi kon Baye Cheikh euh, dañ lay jox kàddu gi ginnaaw boo nuyoo nga leerlal ñu lenn ci jubluwaayu daayira soppe Cheikh Mouhamadoul Mountakha nga leeral ci lenn rek ci loo xam ne mbokk yi soxla woon nañ ko lool ci tënk su ko defee ñu jàll ci yeneen yitte kon Baye Cheikh bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi siyaar mbokki taalibe yëpp. lañ leen joxaat seen wàccuwaay bu baax amaat mbégte bu baax ngir jëmmi borom Tuubaa di siyaar ñëpp jiital siyaar bi Cheikh mën Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd wér liggéey bu mu namm liggéeyal sëriñ bi ñu ànd kaat moom ba faw barkeb xasida yi di siyaar suñu mbokki taalibe fi teew yëpp comme ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha waxee rek indi ay leeral yi nga xam ni moo ñu fi dajale. waaye balaa ñoo agsi foofu ñu waral fu fa fa fa mu tàmbalee rek ñu wax fa mu tàmbalee ay mbokki taalibe yu dajale woon euh, nekk ci groupe bu ñu naan whatsapp ñu xam ni jumtukaay boobu kat war nañ si mën a liggéeyal sëriñ bi ci la ko jëwriñu xalaatee euh, tàmbali def ko daayira boobu ba tey nag daanaka sëñ bi saa su ne ñuy gis tawféex jim ci def bañ ci laajee ndigal sëriñ bi mu jox ñu si ndigal ba pare ni ànd naa seet yéen dafa liggéey bi toll naa koy yëg tawféex jooju saa su ne ñu ngi koy yëg kenn ku ne ba ñu jotee loolu ndigal sëriñ bi xamante ni daara ji daanaka lu mat juróom-benn région yoo xamante ni daanaka teewal nañ fa daara ji waaw loolu loolu loolu looloo war a jubluwaay daara ji. Baye Cheikh Mboup kàddu yi leer na loolu wax dëgg yàlla tawféexe na. te mel na ne liggéey la boo xam ne jihaad la bu am solo la ndax kenn ku ci nekk xam ne dongab daara mënalul boppam dara te jënn yitte rek la am mu yittey jàng kon bu suñ borom dogalee ngeen wuutu ko foofa ak Cheikh Mouhamadul Mountakha te euh, section yi wuute nga wax euh, kon day mel ne dañuy laaj soxna Sagar Jaw moom it ginnaaw moo fi teewal soxna yi Euh, moom nan la dundee liggéey bi ak lan mooy sa ñoom soxna yi nga xam ne daayira yi nekk na ci jotaay yu wuute ci béréb yu wuute ñoom ñu ànd kook section yëpp di dox ak ñoom lan mooy lan moo war a jubluwaay bi ci ci ci ci côté boobu ci soxna yi daal ak lan mooy seen devoir ak lan mooy seen euh, taxawaay ci liggéey boobu en tant que góor yi takk seeni laxasaay jaayanteeg sëriñ bi euh, ci sopp gi mu mel ne sëriñ bi euh, sopp gi li koy ciy dimbali mooy loolu rek ngeen ko mu waxee mooy dimb euh, bëggale ko li mu bëgg bañ la ko li mu bañ kon day mel ne li sëriñ bi bëgg rek ci ngeen nekk kon soxna si soxna saga dañ lay laaj yéen soxna yéen lan mooy seen taxawaay ci liggéey boobu nga xam ne góor yàlla yi taxawee nañ ko euh, ci seen position salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sañ Muntaxa Basiru yaa na fi yàgg lool te ànd ak weer maa ngi nuyu sama mbokk ñëpp ñu ñu bokkal liggéey bi euh, fas yéene liggéeyee sëñ Muntaxa rek si liggéeyam bi ñu sumb ziar bi nag ñu ngi koy waaj ñun soxna yi si wàllum togg bi euh, teral gan yi ak lépp rek lu ñu xalaat rek pour suñu gan yi suñu ñëwee lañ bëgg rek ñu ngi koy def incha allah rabbi loolu daal lañ bëgg soobe yàlla si ak wàllu euh, soxna yi tamit déguisement yi tamit ma leen ciy soññ bu baax a baax a baax. waaw lépp lu liggéey bi war a laaj rek incha allah ñu soxna yi dañ ko def xam ne gan yi suñuy gan lañ teral leen rek. xanaa ma leen soñ ci àddiyee rek te xam ne àddiyee moom la ñuy dajale pour jébal ko sëñ Muntaxa pour ñu def ko si daaraam yi ñun ndongo yi mën cee jariñu mën cee jënd ay ordonnance ak ay saabu ak yére yu ñu soxla. yooyu yëpp ci lañ ko war a jënd ma leen di soññ rek ci euh, àddiyee yi waaw loolu rek laa leen di soññ incha allah. lu leen ko waxee rek yàlla liggéey la boo xam ne bu am solo la ndax kenn ku ci nekk xam na euh, liggéey li féetewu ci donga yi day mel na yéen seen nday doon seen i bàyyi ci daara ja nekk di nuyu waale Cheikh Mamadou Mountakha nga xam ne moo féete ci daara ji ak Cheikh Ibrahima Mbacké euh, bokk ci leeri Cheikh Mamadou Mountakha yi nekk foofu ci ci barab ba ñu mel ne ñoom ñu am yittalal ci ci liggéey bi euh, mel ne ne ñoom ñu nekkoon ci comme taxawaay bii ngeen ngeen fekk leen ca sof sof sofal leen ca day mel loolu tawféexi borom Tuubaa la kon dañ ciy sant bu baax a baax kon day mel ne loolu dañ koy def lenn ubbi rek ci ci ci ci ci jotaay bi ngir leeral leen ci dayre bi daayira bi niñ ko leeralee loolu rek mooy objectif bi mooy wuutu Cheikh Mamadou Mountakha ci njabootam gi nekk ci daara ji doon seen i ndey doon seen i baay doon seen i mag doon seen i nijaay ba duñ manqué dara loo xam ne ci kii jàng ci daara ji maanaam mënu koo ñàkk ci lay tax mu matale ab liggéeyam euh, wuutuwaat tamit ñi nga xam ne ñoo jóge ci daaree alxuraan ji nekk ci daaree terbiyo ja féete leen fa di leen jàppale ci wàllu social di leen jàppale ci lépp loo xam ne euh, liggéey bi laaj na ko ndax kenn ku ci nekk xam ne daaree jàng sax mën naa doon ay tutànk waaye bu dee ay mag ñaare dañuy nekk ñu xaw a am benn âge bi tuuti euh, nga xam ne ku leen fa féete rek mel na sëriñ bi nga fa féete kon ñu ngi leen di sant sëñ Mbaye Cheikh Mboub ak soxna Sagar Diaw ci Diaw ci leeral yu am solo yooyu day eh, mais dañuy duggaat ci beneen bunt ndax loolu rek mooy eh, lenn ci daayira bi ndax kenn ku ci nekk xam ne daayira bi eh, yaatu na lool ci doxin wi te xajul ci jotaay dañuy jox ku ci mel ne sëñ maam Mbay moom mi nga xam ne mooy wàllum siyaar bi ñuy jublu su fekkee maam Cheikh Mbay yàlla dogal na ne moom it mu ci ay leeral su paree ñu jox sëñ Moustapha moom mi nga xam ne mooy wàllum finance bi ku ci nekk xam na ne mbooloo maanaam li koy doxal mooy programme ak euh, euh, di saa bu ne ñuy dégg ci wax ji ak di di ci gën tënku di ci gën a nasu kon dañu jox sëñ maam Cheikh Mbaye mu leeralal ñu lenn ci doxin wi liggéey bi moom ci lu jëm ci wàllum siyaar bi nga xam ne mooy jubluwaay bi euh, nu muy demee fan la ban ban dat la ak lu waral ñu tànn dañuy siyaar ñoom sadil lisaani nawir janaani saafil amaani wa shibraay waliyahab salaamatan wa aafiya wajxan xayaatin xayaatan saafiya asalaamualeykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu ci kenn ku ne sa tur sa sant te jël nuyoo beeg siyaar bi di si jiital alxalifatul am tarixati muridiya cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal bi mu yéene liggéey sëriñ bi suñu borom matale lépp waaye noonu lañ koy ñaanale Sëñ Cheikh Fall jëmm mu fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp sama borom yàggal ko fi lool bay naa bi am yéene liggéeyal sëriñ bi suñu borom matale lépp xanaa di siyaaraat mbooloo mi képp ku fi teew di santaat baax Sëñ Muntaxa si question bu am solo boobu nga nu laaj mu lu jëm ci daara soppe Sëñ Muntaxa waaye rawatina siyaar bu ñuy waaj jàppoon ko le 15 septembre bii di ñëw ba tax na ñu waroon a ñëw indi fi ay leeral yoo xamante ne day jëm ci programme bi waaye ak nan ko bëgg a taxawale ak nan ko bëgg a doxale lool it mu doon loom solo waaye bëgg it mu yaatu ba ñëpp dégg ko ba ku fi jóge rek xam ne lii a tax ñuy siyaar waaye nii lañ ko bëgg siyaar bi jàpp nañ ko la 15 septembre waaye su neexee sëriñ bi 14 dañ bëgg a tàmbali liggéey boobee ngir bëgg mu gën a mucc ayib waaye mu gën a sell waaye dëppoo ak li sëriñ bi bëgg siyaar bi day mel ne dégg nañ fi sëñ maam Cheikh Mbuub lim fi ay section yu toll ci juróom-benn wala lu ko ëpp section bu ne dangaa war a ñëw ci siyaar boobee waaye ñu ngi la ci woo la 14 tombeek samedi waaye bëgg nañ section bu ne 18h fekk la fii ci Touba ndax it fii lañuy defee siyaar bi su neexee yàlla ba 17 18h ñëpp teew daan dajaloo. ànd fa ñuy dal ñu toog fa dal fa ginnaaw ban xeeloo ba noppi bëgg na noo def ab naje boo xamante ne mbokk taal bi yëpp ak bépp section boo xamante ne ñëwoon nga rek ñu dajaloo fa waxtaan fa saafante gën a tënkaat liggéey ba waaye loolu ci samedi bi lay bëgg na nit suñu dee ba waxtu wi xaw a sori jàpp 23h minuit bëgg na ñëpp dem dallu ji ndax it dañuy waaj bis bu mag muy la 15 ndax loolu ñu wax lépp daanaka waajtaay la rek waaye dëgg-dëgg bis mooy le quinze le quinze boo it moom la ñuy siyaar ji sëñ ba fekk ko ci résidence ba muy kër mag moom gee waaye bëgg na nit waxtu woon wax waxtu woo xam te ne jox na ñu war faa dem 7 ci suba lay doon ndax dañuy bëgg teel a dem man faa teel a siyaare sëñ bi man koo gis ci anam bu sell waxtu woowu it tënku nañ ci ba fasantikoo ci may 7 heures fu mu jotee dinañ fas yéenee waaj ñu ñëpp àndandoo daal di dox. dox bu am solo muy doxu mbégte lañ koy tudde daal di egg sa barab ba muy résidence ba suñ fa àggee bëgg nañ fa kenn ku ne day mel ne soxna sagar junñu na ko sànq muy jëm ci digisement yi tey daa bokk ci sàtt daara ji muy digisement bi nga xamante ne mbooloo mu ne wala képp ku jënd membre ci daare sëpp si mu tax war nga ko am jàpp ci dubaay bu weex ak kaalu gu ñuul loolu it sàkku nan suñ dee dem sa barab ba ñëpp sol ko képp koo xamante ne rek jënd ko carte membre nga sol ko ah, suñ demee ba àggit bëgg nañ suñ demee sa saal ba ni dalal war na nañ faa jàng lu mel na alxuraan ndax it day mel ne daaw defoon nañ siyaar waaye ren dañ see bëgg yokkaat yeneen ndaxit it liggéey suñ tuwaa saa su ne amul tànk ginnaaw tànki kanam rek kon suñ àggee ba ca saal boobu xamante ne fa la ni dalal di fa xaar sëriñ bi bëgg nañ faa wàcce kaamil waaye it bëgg nañ faa amal njàngum xasida waaye bëgg na nit bépp berne lu jëm ci kam que suba teel la sept heures lu jëm ci ndékki wala xeet yooyu bëgg nañ ko faa amal bëgg nañ ko faa amal it képp koo xamante ne it daara joo xamante ne fekk nga nu fa wala ñu fekk la fa rek bëgg nañ laa siddaale ci xéewal yooyu ndax dégg naa sànq ci kàddu yi ñuy daara sopp si mu tax li ko tax a mooy taxawu daara yi kon fu ñu fekk daara rek ñool war a taxawu kon loolu it bokk na ci programme bi su neexee sëriñ bi du nu siyaaree sëñ ba noppi ba sëñ bi jógul ko suñuy àddee wax ko li ñu tax a jug wax ko suñu yitte waaye loolu siyaar la rek waaye lan tax a jug dëgg-dëgg mooy dem taxawu daara yi bëgg nan incha allah wut ay xéewal lu ci mel ne ay tonu ceeb wala ay xeet yu mel noonu yóbbu ko ci daare yi nga xamante ne sëriñ bee ko moom mu sanc ko ndax it loolee suñu liggéey te loolu suñu bëgg suñ fa jógee ba siyaare sëñ ba noppi dañuy génnaat dugg ci jumaa ji waaye ci buntu soow bi lanuy ñuy ngir def benn siyaar bu ndaw ci jumaa ji barab ya fa ne ak sang sa fa tëdd barab bu ne bëgg nañ laa siyaar eh, toog fa ñaan suñu borom yokk daara ji ba yéene ji mu am suñu borom matale lépp suñ fa noppee dinañ génne ca buntu penku ba eh, dugg bi daare kaamil siyaare barabu Sëñ Abdul Ahad waaye siyaare it ñeexitu sëriñ ba fa moo xam ca kaamil moo xam ca lal ya moo xam bagage sëriñ ya fa ne rek bëgg nañ koo siyaar suñu fa jógee dinañ jàll sa maam Cheikh Ibra Fall Lamp siyaar ko ndax it danoo bëgg siyaar bi ren mucc ayib lool waaye duñ fa jugee gën a jekku màggal bi waaye suñu jugee foofu it dañuy wër aw buntu kër Serigne Saliou daal di ñëwaat ci buntu soow wi jël tali daal di ñibbi ndax it Serigne Saliou daan wax naan du ma fekk lu sëriñ bi yaatal ma koy xatal waaye ñu nit liggéey suñ tuwaay wi duñ ko mos a xatal ba tax na loolu ñi nga xamante ne soppi lan ndax it soppe si muntaxaa moom xanaa ñoo ko tënk ci carte membre rek waaye àdduna bépp soppee si muntaxaa lan waaye taxit noonu ñu nga ko laajee muy ñi nga xamante dañuy ñëw te dañ leen a woo waa wala ñu gis appel bi wala ñu gis ab affiche wala boo xamante ne bëgg na teew ci liggéey bi waaj nan noo xamante ne suñ dikkee kat dañuy ànd ñoom noonee liggéey bi waaye day mel na sax ñooñu di ñëw sax day ñooy siyaar ba safar ndax ñun day mel ne dañ leen a xàllal rek waaye waaj nañ ko it ci anam bu rafet ndaxit it ban ko defee daaw ba suba ga dañ ko leen di waaj. muy jëm ci sécurité bi mu jëm ci set gi lu mu mënti doon rek waaj nañ ko ngir ñooñu suñ ñëwee eh, incha allahu rabbi yi dinañ ànd ñoom ci anam bu rafet jiital leen ci lépp loo xamante ne war na nañu si siyaar boobu ne ndax it ñun yaatal googu it mun tax a jug te moo bokk ci li nga xamante ne mooy mooy mooy sunub liggéey kon loolu sëñ taxa daal eh, préparé nañ ko ci fàllu yëpp wax dëgg yàlla question yi matt na te am na solo waaw daara yooyu nga xamante ne wala dong yooyu ñi nga xamante ne ñoom lañ war a ànd liggéey bi wala ñoo tax ñuy liggéey euh, daanaka suñuy biiri wax leera nan sax ne siyaar bi moom waaw mënta ñàkk ñu koy def rek waaye dëgg-dëgg liggéey bi mooy taxawu daara yi la waaye day mel ne nit ki moom soo bëggee xam fekk ko ci bëgg-bëggam wala bëgg xam nan mel da koy jéem a jege wala jéem koo sës rëkk rek euh, ba tax na ci biir daara Sopé Serigne Mountakha amoon nañ ci mbooloo moo xamante ne euh, jege woon nañ lu mel ne sëriñu daara yooyu wala lu mel ne dongo yooyu ba tax seeni bëgg-bëgg ak la ñuy yittewoo ñu xam ko ba da ciy dox ndax it dëgg-dëgg liggéey bi mooy taxawu daara yi waaye sax nekkul sax di dajaloo di day taxawu daara yi tax ñuy ñuy liggéey loolu it wàcc nañ ci loo xamante ne daanaka bés buñ si yeggee rek dongo yi dina xam ne kat ñun soppe yi kat lii rek a tax ñuy liggéey. te sunu ngërëmal Sëriñ Tuubaa kat si ñoom lañ ko yaakaare loolu it pour nga am ko ci ñoom it nit ki moom da xool la mu gën a bëgg rek wala la mu gën a yittewoo nga fekk ko ci ndax it taxaw moom daa mel ne ëmm na lépp waaw taxu taxu nit ki moom ëmm na lépp eh, daara yooyu it benn bu ci ne dinañ ko gëstu eh, la fa manqué ak la nga xamante ne war nañ ko faa def lu mënti doon mu jëm ci dund walla mu jëm ci fajum hôpital mii wala mu jëm ci njàngum arxuraan mi wala mu jëm ci xam-xam wala lu mu mënti doon rek loo xamante ne ab ndongo daara dina ko yittewoo wala sëriñ dina ko yittewoo ci daaraam eh, ña ngi cay dox jëm te ña ngi góor góorgóorlu xanaa di ci dugalaale benn lu gàtt rek ndax day mel ne ñaar fukki fan yi weesu daara ji am na taxawaay bu mag bu mu defoon ci loolu eh, wut ay xéewal yu bari daal di dem lu mel ne daara yi tiib defar fa ay ndogu yu am solo yóbbu ko ca daara ja jox la ñu ndogu waaye ñu bàyyi fa loo xamante ni yaakaar naa la desoon sa koor ga dinañ ko mën a jëfandikoo te loolu it njort naa ne bokk na ci bëgg-bëggu daara yooyu kon nun daal day mel ne waaj nañ ko ci anamu seet loo xamante daal su nee Sëriñ Tuubaa eh, duñ fa yeggee ak jàmm di leen xam ne daal mbir mi waaj nañ ko te it bëgg nañ ñëpp fekk ko su nee sëriñ bi yàlla na Sëriñ Tuubaa defal dimbale daal ban yegg ak jàmm rek. kon dañuy duggaat foofu rek jëm ci eh, sëñ Moustapha Sourang ndax eh, sëñ Moustapha Sourang liñ lay laaj mooy maam Cheikh Mbaye li nga xam ne leeral na ko fi programme la waaye budget la tamit. programme la waaye budget la yow mi nga xam ne yaari wàllum finance bi eh, nan nga ko programme ci sa wàllum financement bi nga xam ne eh, fas yéene nga ko financé ci programme bii nga xam ne tëral na ko ak tamit eh, nan nan nan mooy objectif bi nga xam ne yéen yor wàllum finance ndax finance du kenn du ñaar ab ab commission la commission boobu yor finance finance bi na ngeen ko programmer ndax da ngeen am ay sponsor yu leen sponsoré ba tax ngeen am doole jooju ba mën a finance programme bu toll noonu ci deux jours wala ndax eh, da ngeen di boole seen i ñaar dërëm ak ñett dërëm wala ndax sëriñ bi moom moo leen jox matériel bu ngeen koy liggéeyal ngeen di ko liggéeyal loolu dañu amoon yéene nga leeral ñu ko ci baax suñu Moustapha Sow wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabiyihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman allahuma aslih ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahuma farij an ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahuma irham ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam awnaka ya muhin wa bika nastahin la hawla wala quwata illa billahi alali alazim asalaamualeykum wa rahmatullah daaira soppay sëriñ Muntaxa maa ngi leen di nuyu baax di leen siyaara di leen xamal ni man man la Moustapha Sourang président France bu daaira soppay sëriñ Muntaxa ginnaaw bi ñaanle sunu sang Cheikh Mahamadou Muntaxa mu yàgg fi lool ti wér ñoo ngi siyaara mboolem ñi fi teew ñëpp di leen baalu xaq di leen baal bëggoon na ñëw ci ay leeral rek ci li nga xam ni dénkoon nañu ko waa finance ci li ñu ci santoon xam naa bu ñu déggee wax yi nga xam ni wax nañ ko fi yëpp kenn ku ne xam ne ne liñ fi wax ay waxi kese taxul mu sotti kon xaalis ak jaayante bu baax mooy tax mu sotti nañ ci yàlla defal tawféex ci kaw loolu moo tax ñuy soññee bu baax ci hadiya ji hadiya ji ñu ngi ci soññee bu baax ci képp koo xam ni sa hadiya agsi gutoon ak képp koo xam ne sa hadiya na waaye kenn ku ne xam ne ci ay donga lañ jëm kenn ku ne loo ci mën a jaayante ci loo xam ne lu mel ni ay saabu ay odd sewel yu mel noonu lépp loo xam ne daara dina ko soxla woo ñoo leen ci xaar bu baax waaye li gën a jàmp daal mooy ñu matal hadiya ji ñu koy soññi bu baax a baax a baax euh, ginnaaw loolu tamit ñaareelu bi ñuy leeral ci waa finance mooy li nga xamee ne euh, finance def na ko ci at mi ci lii ñu weesu ginnaaw siyaaru daaw ba ak léegi euh, ginnaaw siyaaru daaw ba ak léegi li fi finance def mooy kenn ku ne xam ne ne am na ay réunion yu ñu daan def ci section yi lu mel ni Thiès ak Suwal ak euh, Diourbel jot nañ ko fa amal euh, réunion réunion yooyu daan nañ fa finance daan na fa génne ci euh, ci ci keesu daara ji daan ko yóbbu ci réunion yooyu loolu lañ ci jublu woon rek mooy comme sa ñaa ñi fekk si ñu jox leen dara noonte lu néew la mën leen kaa gën a woyofalal ba nga xam ni duñ ci sonn daal ci ña fay ñëw te it ñoo ngi leeral tamit nii réunion yooyu ñu daan def waxtaan yi ci yu am solo lañ fa daan waxtaanee mooy waxtaan yoo xam ne lu daan jëmal daaira bi kanam ak lu tax ba li ñu bëgg mu nekk ci sunu xel ba tax ñu jóg nii dañ ñooy soppee suñu taxawaay yi nga xam ne dañ ko bëgg a liggéeyal ci daaraam yi nu ñuy wax lu ñuy def ba euh, loolu mën a antu réunion yooyu loolu lañ loolu lañ fa daan waxtaan waxtaanee réunion yooyu nag chaque réunion finance daan na génne dara ci kees gi daan leen ci jox ndonte lu néew la tamit. waa ñu jàppale ko ña ñi fekki ngir ngir ngir ngir mu gën a woyof daal ak it bokk na ci li nga xam ne finance def na ko ci at mi ñu ginnaaw siyaaru daaw ba mooy ndog yi jàll ndog yi ñu defoon daara suñu taxa mooy ji nekk tiib ci koor gi ñaar fukki fan yi koor gi defoon nañ fa ay ndogu yu am solo dem ca daar ja bokk fa yenn fa ak dong ya berndeel leen ci ay ndogu wàcc fa tamit loo xam ne ni eh, mën na leen a gunge waale ci koor gi loole tamit am na am na xaalis boo xam ne finance génne na ko ci ba defan ko fa xëy na tamit leeraloo lépp daa ak seegut ndax dañoo bëgg a bàyyi ba ba ba ba ba ñu door ko leeral ci kanam mbooloo mi waaw kon daal loolu bokk na ci li nga xam ne finance def na ko ci at mi muy réunion yooyu ñu daan def ak euh, ndog yi jàll waaw ñetteel bi tamit ci li ñuy leeral mooy lan mooy lan mooy li nga xam ne moo nekk ci sunu kanam ñun waa finance bokk na ci li nekk ci sunu kanam mooy amal ay liggéey boo xamee ne day nekk ci moomeelu daa daaira soppe Sëriñ ndoxa maanaam taxawal ay bërëbu liggéeykaay yoo xam ne euh, daaira bi moo koy moom te loolu tax taxawal ko am solo mooy ñoonu moo ko yàlla bu yàlla defoon daaira bi xaw a sooxe bu yàlla defee ñu taxawal liggéey boobee bu ci yàlla defee barke dina mën a dina mën a topp lii dayra bi taxoon li tay dayra bi doon bëgg waaw moo tax incha allah ci at yi ñu jëm wala feek déwén finance bëgg naa fexe ba xalaat boobu te xalaat boobu tamit mi ngi daan mi ngi jóge woon ci réunion yooyu ñu daan amal ci section yi ci la jóge woon waaw xam naa antogut waaye incha allah ci li sunu kanam daal fexe bëgg nañoo fexe daal ba tijji ab place boo xam ne moo xam daal lay jaay moo xam dañ fay bërëbu bu ñu jàngale lu mel ni ay français yooyu yooyu yëpp doon nañ ko xalaat waaye nag amagut waaye mi ci sunu kanam te incha allah rafet nañ ci njort kon daal loolu lañ santoon ci ñu leeral ko ñu leeral ko euh, ci li liñ jot a weesu ak liñ jot jëm amma jëmmi at mi lan lañ fi dajee ci xaalis ak fu mu dugg loolu mënaguñ ci àntu ndax dañu cee joxagu ndigal dañoo waxoon ni dañuy bàyyi ba siyaar bi bu ñëpp teewee ñu leeral liñ jotoon na liggéey ci at mi ak fuñ ko dugal waaw loolu xam naa moo tax kon loolu mënaguñ koo leeral waaye daal képp koo xam ne yaa ngi seetaan vidéo bi euh, képp ku ci jot daal mooy sunu yéene daal leen la mooy liggéeyal sëriñ Touba ci daara yi sëriñ Mountakha képp koo xam ne jot nga sunu sunu message bi mooy te foo mën di nekk ci àdduna ab daaira la boo xam ne dañ koo sos ngir liggéeyal sëriñ Touba ci daara yi sëriñ Mountakha kon képp koo xam ni am nga yéene ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci daara sëñ Muntaxa ibbil nañu la suñuy buntu xay na jumut numéro bi dinañ ko dugal incha allah euh, siyaar bi tamit la 15 septembre yal nañ ci yàlla yu bokk jàmm di soñ ñëpp daal ñu bar ci ëdd yi ji macha allah <laughs> waaleykum salaam wa rahmatulah taala barakaatu. leeral yi am na solo lool wax di yàlla dugg ci waxi mag ma la mu waxoon rek ñi moom da nga leen laaj doon man di ko def fon xam. kon day mel ni ay kàddoom da ko ubbee ci leeral eh, liñ ko dénkoon ni mu ci doon doxee ci xeetu financement yi nga xam ne mënut a ñàkk ci eh, ñu financé ko ci wàllum liggéey bi kon day mel ne loolu leer na lool leer na ñi kon day mel ne eh, lépp leer na ci côté boobu mais beneen laaj bi ñu lay laaj rek mooy ci côté finance su siyaar bi ci côté finance su siyaar bi ndax gis nañ ne siyaar bi niñ déggee maam Cheikh Mbaye résumé ko mel na ne dina laaj xaalis nag moom ndax xaalis boobu lu kenn jaayante la teg ko fi la wala ndax lu waa daayira bi boole seeni fukk ak juróom teg ko fi la wala dafa am sponsor boo xam ne moo leen sponsoré wala ngir sëriñ bi moom moo yëkkati addiyaam jox la ngir ngeen liggéeyal ko ci domaine boobu euh, ngir euh, ak yaatal ci côté bu mel lu ci mel ci domaine boobu ndax comme ni ko maam Cheikh Mbaye tënkee rek ndax euh, ndax ni wax ngeen ne bu ngeen xëyee da ngeen fexe ba daara yi yëg ne Euh, seenu njaboot jóg na ngir taxawu leen ñu ngeen di fekk danañ yëg ne ñi leen fekk si kat yéen la nekkal ca béréb ba nekk euh, njabootu Sëñ Tuubaa gépp yëkku ak tournée yi nga xam ne ngay tournée ci biir jumaa ji ngir siyaar ngir gën a ñaan suñu borom na liggéey bi loolu la ñuy wax budget boobu nan ngeen ko mën a dangeen koo am wala fu mu jóge wala ndax sponsor daal moo ko sponsoré ndax nag li maam li maam Cheikh Mbaye wax euh, du lu ndaw daal ndax lu ndaw wala wala xanaa wala président mooy leen woo financé leen côté boobu wala si ñaar dërëm ki juróom daal ngeen boole wala dañu am yéene ngeen nga leeral ñu ko bu baax en tant que commission bi yor wàllum finance. waaw ñun de sunu financement weesuwut waa soppee suñu Muntaxa yi moom lañ fi amagun ci sponsor moom lañ fi amagun mooy li ma la wax léegi léegi sama biir kàddu di wax képp koo xam ni sunu sunu jataay bi agsi na ci yow ci àdduna bépp ab daaira ngi wala am mbooloo ngi bu jóg ngir liggéeyal sëriñ Touba ci daara yi sëriñ Mountakha kon daara moom ku ko tudd ku mas aw daara xam nga daara la muy soxla woon daaira bi nag moom yëkkate wuñ sunu alal di ko jébbal di ko joxe maanaam lu ñu dajale ci at mi ci daara ji la jëm ci dongo ya kon sponsor bi ñu amagul mooy ñi nga xam ni ay membres lañ ci daara yi soppay suñ Mountakha siyaar bi ñu jëm liñ ci bëgg maam ab xaalis moo koy def moo tax waa Mamour soppe suñu taxa war a jaayante bu baax ci suñu sunu hadiya ñu jiim ko matal ba doublé ko ndax euh, jëwrin sëñ Saliou mi wax na ni bi mu demee ci sëñ bi keroog wax na ne ko leeral na ko bu baax ba mu leer ci boppam ba ne ko maa ngi koy ànd ak yéen en tant que sëñ Tuubaa nag ni maa ngi koy ànd ak yéen kon ñun waxi sëñ Muntaxaa jooyu ab soññ lañ ko war a jàppee daal waaw ab soññ lañ ko war jàppee jaayante bu baax rek comme sa bu ñu fexee ba suñu hadiya mat lii daar di soxla ay saabak yooyu yëpp ku lu mën di doon ñu dajale ko doon ab jaayante daal ab jaayante daal ab jaayante la mën a tudd waaw ah, yàlla nañ ci waaye ah, suñ sponsor daal mooy Mamour soppe suñu taxa yi ak képp koo xam ni am nga yéene liggéey suñ tubaab ci daara suñu taxa ñoo la ci woo daal di ibbil suñu buntu eh, di nuyu suñ Baye Saliou Souran mi ngi doog a teew léegi ci jotaay bi eh, nekkoon ci activité liggéey bi moom it dañ koy jox kàddu gi rek euh, di nuyu euh, sëñ Cheikh Mboub mi nga xam ne moo ko fi nekkaloon kon day mel ne euh, lépp lu ñu soxla woon rek sëñ Cheikh Mboub matale na ko waaye moom dañ koy jox kàddu ngir mu gën a indi yaatal ci ci liggéey bi moom it ndax mooy jëwriñ ji lépp ci loxoom la soso kon day mel ne moom it dañ koy jox kàddu mu tënkal ñu lenn ci daayira bi programme mu daayira bi doxin wi ak nan la programme ba sëñ maam Cheikh Mbaye ak sëñ Moustapha Souran Euh, kàddu yi ñu fi yëkkati euh, niñ ko programme ak niñ ko nosee mel na ne lu nosu la kon day mel ne du loo xam ne kenn ko xalaat rek di tëral di def kon mbooloo ko nos te mbooloo moomu nosu day mel ne kon am na lu làqu ci seen ginnaaw muy seen i pas-pas ak seeni engagement ak seeni i seen i seen yitte kon dañ ko jox moom mu leeral la ñu lenn ci daayira bi doxin weeg sosin geeg objectif beeg lépp ci loo xam ne lu jëm la ci liggéey bi rek ndax euh, mbokk yi gën cee mën a soññ baax a baax bisimilah Baye Salim. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñoo ngi leen di siyaarewaat bu baax di nuyu mboolem koo xam ni teew na ci jataay bi moo xam ngay membre daayira soppe Sëriñ Muntaxa wala sax dangay ñëw ngeen jàpp si ci liggéey bi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaar di rafetlu bu baax teewaay bi di. ñëw rek ci lenn ci li nga xam ni mooy liggéeyu daayira soppe Serigne Mountakha ci ni nga xamee ne noonu lay doxee daayira soppe Serigne Mountakha li nga xam ni moo ko tax a jug daayira soppe Serigne Mountakha am mbooloo la moo xam ni dañoo dajaloo ngir liggéeyal sëriñ Touba. waaye awee ko ci sëriñ Muntaxa di mbooloo moo xam ni ci groupe whatsapp la la sosoo waaye bi mu ci sosoo ñu dem ba si yàgg xalaat ni doonatul loo xam ni dañ koo war a wàcc nii rek ci groupe whatsapp bi suñ xëyee wax ci eh, ak yu demee noonu waaye dañoo war di dajale suñu àddiya di koy yëtti sëriñ bi ñu nekkoon ca loolee biñ demee ba ci ba ci ba eh, ba diir yàlla dogal eh, ci ay xalaat ci ñenn ci ñi nga xam ni ñooy membre daayira soppey sëriñ Muntaxa xalaat ni comme que gis nañ ni sëriñ bi moom nekk na ci liggéeyu sëriñ Touba yi ba tëlul li nga xam ni moom moo ko jëmbatal boppam ni kon nañ nañ nañ ko ñaan ndigal taxawul ko li nga xam ne mooy daa daa daaraam yi ci noonu bi nga xamee ni dem nañ ñaani ko li nga xam ni mooy ndigal mu nangul ñu ko teg ci ne maa ngi ko ànd ak yéen kon loolu ak sant la bu baax li nga xam ne nag mooy sart daayira soppay sëriñ Muntaxa ak yoon yi nga xam ni moo mooy tax nga mën a nga nga nga mën a bokk ci daayira bi mooy am na carte membre boo xam ni moo la ciy boole ñu ñu ñu koy joxe ci ci ci ci ci lim bu lim bu taw feexe muy lim bi nga xam ne moom lañ koy joxe doonul euh, loo xam ni lu yitteel lu yitteel daara ji la waaye loo xam ni moo lay wan ni bokk nga ci daayira bi la ginnaaw looloo tamit am na sas boo xam ne dañ koy jox muy ci góor ak di jigéen am na euh, lim boo xam ne moom lañ lay jox ni la lii mooy sa sas kon loolu bokk na ci sart yi ak dégisement bi nga xam ni euh, jël nañ ko te euh, jële li nga xam ne mooy solo yi ñu jëlee ko ci Serigne Mountakha ndax ku ne xam na ne yére bu weex lay sol li ci ëpp ci bi nga xamee ni xam nañ ko yére bu weex lay sol teg ci kaala gu ñuul ñu fës ki yéenee jël loole waaye royee ko Cheikh Ibra Fall kon loolu mooy li nga xam ne mooy sart bi Euh, bokk na tamit ci li nga xam ne mooy sart daayira bi muy fépp foo xam ne am nañ fa ñetti membre dañ fay taxawal section euh, suñ fa taxawalee section danañ di def chaque quinze jours ñu amal daayira euh, bu ñu amalee daayira daneen jàng xasida jàng alxuraan ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd dajale seenu ñaq waaye bootu ci Touba mi nga xam ni euh, mooy euh, daara ju mag ji maanaam Touba mi nga xam ni daal mooy mooy sees bi kon no no noonu lay demee lépp loo xam ni sart la boo xam ni euh, toog nañ tënk ko bépp membre boo xam ni daayira soppee sëriñ Muntaxa nga bokk dañ ciy ànd dañ ciy bokk ci ci ci dangay bokk ci ñi nga xam ni ñooy ñooy fas yéene def liggéey boobu Mm-hmm. waaw kon loolu loolu mooy euh, sarti daayira soppey Serigne Mountakha euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi muy euh, bu bu ñu samp ji section ci foofee nga xam ni fala fala war a sampoo ni mu demee mooy comme ni nga ni ko Serigne Moustapha leeree la woon mooy ci Euh, bureau bureau bureau yooyu ñuy def muy réunion bureau yooyu nga xam ne moom la def danañ ko fa amal waxtaane fa point ya nga xam ne moom la waxtaanee ba ngoon jot ñu waxtaan ak ña xam ne ñoom lañ fa fekk si xamal leen ni bis ne ka tey fii nii ab section la ñu fës ki yéene chaque quinze jours yu nekk ñu daje waaw ñu daje defee ko comme nii ma ko waxee woon léegi kon noonu lay demee. ñëwaat ci sëñ maam Cheikh Mbaye mi nga xam ne moom moo yor programme mu ziar bi ndax kenn ku ci nekk xam ne bàyyi saaliw dafa leeral ci ne ñi nga xam ne am nañ carte de membre ñoom lañu reconnaître ci ne ñoom ñoo bokk ci daayira soppe yi te ziar bi annonce bi ñëpp lañ woo léegi yow ban programme nga jël ci ñi nga xam ne adhéré wu nañ ci daayira bi ba bokk ci ak section bu ñu mën a bàyyi ko nax xam ñoom bokk nañ ci daayira bi yenn say lañ ak ñi nga xam ne da ngeen leen a jox appel ngir ñoom ñu ñëw ànd ak yéen ziar boobu ci mbégte mi nan ngeen programme programme boobu ba ñëpp ñu mën ko ànd ak ñoom ba fexe ba ñoom bu ñu demee ñu mën a ñëwaat bokkaat ci comme membre yi loolu ban ban ban ban kii ban liggéey ngeen ci liggéey ci domaine boobu daal. ci question yam solo yooyu waaw nin ko nin ko laaje rek muy ñi nga xamante ne xëy na di leen gis yëgle bi walla affiche yi ba tax ñu bëgg a ñëw tudd yu soppee waaye day mel ne amuñu carte membre ci daara ji. waaw loolu am nañ ci waajtaay bu am solo ndax sànq suñuy biiri kàddu rek leeral nañ ko ñi nga xamante ne danoo bokk ci daara Sopé Serigne Mountakha jënd carte membre day mel ne eh, ñu misaal ko ci màggal Tuubaa rek ay gan yu jógee feneen ñëw sa kër eh, génn sa néeg génn sa kër jox leen ñu toog kon ñun day mel ne soppe yooyu xamante ne ñu ngi ñëw te amuñu carte membre noonu lañ bëgg a ànd ak ñoom ñu xam ne wut nañ ay dalluwaay yoo xamante ne eh, mucc na ayub lool waaye wut nañ ñoo xamante nit dañuy taxawu ñooñu xamante ne ay soppe lan te danoo am xemmemteef rek bëgg a ànd ñu liggéey bi eh, ba tax na su ñëwee eh, dinañ leen teg ci waar woo xamante ne su neexee sëriñ bi suñ delloo di leen bëgg a tàbbi ci liggéey bi loolu it programme nañ ko ci lépp donte. déguisement yi day day force ñi nga xamante am nañ ko ndax it euh, sëñ Muntaxa ku ragal péete day day xañ a wërsëg te ñi bokk ci daara ji moom jënd carte membre duñ leen yemaleek ak lenn waaye ñi ñëw it ànd ñu liggéey bi mënu leen mënu ñu noo yemale ak lenn ndax woote neex na loola wuy sëgg rek moom moom am na solo ba tax na képp koo xamante ne ñëw nga ci char bi te doonub soppe incha allah wut na ay dalluwaay yu baax yoo xamante ne ñoom rek ko tax a mooy ñi nga xamante ne amuñu carte membre te am nañu yéene dem ci siyaar bi wut na ni ay nit ñoo xamante ne su neexee sëriñ bi dinañ leen taxawu ba xam ne su ñibbi weetee wala bala ñoo dem sax fi fin fi ñu toog la ni bokkee ci daayira bi waaye it wut na nit ay nit ñoo xamante ne ku ci bëgg a bokk wala ay numéro yoo xamante ne ku ci bëgg a ñëw euh, di leen ko joxee xam naa lu mel ne daaru mel ne pinc mi lu mel ne kër Sëñ Abdou Kim lu mel ne kër Baye Dame Sourang ba ay numéro yoo xamante ne képp koo xamante ne rek yëngu ko nii te bëgg a ñëw rek te mënoo xamoon cee kenn soo doxee si numéro yooyu di nga eesi suñ eesee ba ci bis bi mm. am na noo xamante ne waajoo nañ ko ci demin wi waaw waajoo nañ ko ci demin wi mu jëm ci eh, li ñuy dem siyaare ji muy doon loo xamante ne anam bu rafet la ñooñee xamante ne ñëw nañ ci liggéey boobu noo ne bëgg na leen a jiital ci lépp loo xamante ne ab liggéey la waaw bëgg na leen a jiital ci lépp loo xamante ne rek liggéey la ci daara soppi sëñ Muntaxa ñi nga xamante am nañ quatre membres topp seen i noonu lañ ko waaje te it incha allah rabbi yàlla nañu sama borom yóbbu jàmm suñu àggee daal dinañ xam ne soppee si mu taxa daal ñoo ñoo ñoo xewle ah, laaj bu ñuy xaw a laaj sëñ Moustapha Souran su ko defee ñu joxaat kenn ku ci kàddu goo xam ne sa mujj rek ngir soññee bu defee jox sañ suñ jëwriñ ji fi teew muy sëñ Moustapha Mbacke xasida euh, moom it mu feeñal mbégteem ci ci teewaay bi euh, sëñ Moustapha laaj bi may laaj mooy ginnaaw yaa wàllum finance bi te ji koo xam ne bokkul ci daayira bi ki bokk ci daayira moom xam na yoon wi muy jaar ba ñëw ngir bëgg a def jaayanteem ki nga xam ne appel bi la dégg rek ngir na moom am na yéene jàpp ci liggéey bi kooku wan yoon ngeen ko rëddalu yoon woo xam ne moom bu ci jaaree euh, dana mel ne euh, li mu bëgg a jàppee lépp jàpp na ci moo xam bu dee addee ju mu bëgg a joxe wala saabu yu mu bëgg a jënd joxe ko wala lu man a doon wala mu dem ba bëgg sax boole ci ay waa këram ci liggéey bi ngir ñu teewal leen seen liggéey loolu yow euh, sëñ Moussa Sourang nan nga ko programme Eh, ci ci ci ci domaine boobu eh, ndax dangeen ngeen ubbi ay ay compte bancaire wala da ngeen am ay compte Orange Money wala ndax da ngeen am ay cellule yu ngeen yu ngeen yu ngeen samp ci biir dëkk bi wala ci section yëpp wala nan nga programme programme boobu si ki digg appel bi mënut a ñëw am na yéene jaayante ci fan lay jaar ba jaayante boobu yegsi ci liggéey bi waaw comme laaj bi nga laaj mooy li ma tàmbale woon su ma jël njëlbeen wax ni maanaam li ñu bëgg moom yéene lañu am rek ak bëgg li koy tax li tax mu sotti nag kenn ku ne xam ne xaalis la ci loolu ñu koy ñuy lancer appel rek ci képp koo xam ni seetaan nga vidéo bii euh, foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu lay wax ni yaatal nañ suñu bunt ci ñëpp daayira bi lenn ko tax a jóg muy liggéeyee Sëriñ Tuubaa ci daara Sëriñ Muntaxa euh, waaw daayira bi am na am na compte Orange Money ci la ci la moom la am compte Orange Money bi mi ngi doon 77 707 06 90 mooy compte bi nga xamee ne Orange Money la képp koo xam ne awla na ci sa hadiya incha allah dina àgg ci daara ja euh, ba tey it képp koo xam ne bëgg na ci ay leeral mën ngaa woo jëwrin ji sëriñ Saalihu Suram ci 76 024 sero 08 waaw kon daal appel boobu la ñuy lancé ci képp koo xam ne vidéo bi agsi na ci yow di la taalal suñu loxo bu baax ci nga jàppale daaira bi nga xam ni jug na ngi liggéey Sëriñ Tuubaa ci daara yi Sëriñ Muntaxa ci lépp loo xam ne daara dina ko soxla woo xam naa lu mel ni siyaar beeg loolu loolu lépp taw tawfeex juñ ci dab la rek waaye li ñu itteel dëgg dëgg mooy taxawu ay donga kàddu yi am na solo lool an jox sëñ eh, maam seex mbay mu jotal kàddoom gu mujj su ko defee ñu jox eh, sëñ Baye seex Mbuub moom it eh, su ko defee ñu yeewu jotaay bi rek mm, sëñ maam seex Euh, ban appel ngay lancé ci sa kàddu bu mujj ñu yeewe jotaay bi. Euh, li ñuy lancé rek mooy ñu ñëpp rek ñu gën a laxasuwaat gën a waajaat gën a takkaat jëmaat waajaat siyaar bi di ko fàttali rek la 15 septembre la di ci woo rek di ñaan sëriñ bi dafa ñu jékku ci ndigal jékku ci àddiyee euh, suñ fu jógee it màggal gi jag rek waaw lépp rek ñu fas ko si waa di soñ ñëpp rek képp kuy dégg suñ kàddu rek ñu ngi lay soñ di sant bu baax. waaw di sant di suñu mbokkum taalib yi waa Rafah TV ñu ngi koy sant baax ci taxawaay bi lépp rek waaw sant baax waaleykum salaam wa rahmatullah. naa ñu jox sëñ Baye Cheikh Mbuub moom it eh, mu jotal kàddoom yu mujj rek eh, ci jotaay bi bisimilah Baye Cheikh. gannaaw lool di woo sa mbokki taalibe yëpp ñu wàcc bis bi bu baax eh, rawatina fu ma féete fee muy waa Dakar ñu def nañ ko defee woon daaw rek si wàllum àddi ji jaayante yëpp rek. ñaan suñu boroom nangul ñu lépp yàggal fi sëriñ bi lool ba saa su ne ñuy àndan moom liggéey bi jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum waaw wax ji de xanaa ay répété lay doon rek waaye mënut a ni ñoo ngi tàllal suñu loxo ñëpp doonul mbir moo xam dañ ko tënk ci ay ñetti nit ak ñeent benn yéene la mooy liggéey suñu Tuubaa ci daara suñu taxaa kon mooy li léegi rek tàllal suñu loxo ñëpp rek tàllal suñu loxo. mbooleem képp koo xam ni daal am nga yéene liggéeyal ci sëñ tubaa ñoo ngi la ci tàllal loxo bu baax a baax waaleykum salaam wa waaw di santaat yàlla bu baax di santaat bu baax ci daje bi nga xam ne daje nañ di sant suñu borom ci jàppandal gi nga xam ne jàppandal nañu ko di sant mbooleem koo xam ne teewoon na ko rawatina ñi nga xam ne ñëw nañ jàpp ci li nga xam ne mooy liggéey bi euh, ci Rafah TV mii nga xam ne àndoon nañoo moom. te mu jàppandal ñu mbooleem li nga xam ne mooy liggéey bi ñëw euh, def ci yitte ak fulla ak fayda war nañu maa ngi ko ànd ak yéen te ñu fas yéene ko ànd ak moom mbooleem li nga xam ne mooy siyaar bi euh, di sant bu baax sëñ Moustapha bi nga xam ni teew na fi sëñ Moustapha Mbacke ñu ngi lay sant bu baax yaaram waaw di la tuubal di la jéggalu bu baax ginnaaw loolu nag kàddu soññee la yoo xam ni dana jëm ci li nga xam ne mooy siyaar bi ci fulla ak fayda ak jom ak fit ci ki nga xam ni moom lañ àndal am gum ko am ngir ñu war koo roy ci moom ci gore xam ni sëriñ Tuubaa defal nañu lu ñu jomm comme que defal nañu lu ñu jomm te mënuñu koo fay ñu njukkal ko njukkal ko nag mooy nekk ci liggéeyam bi loolu maa ngi koy dénkaat sama bopp di ko dénk ñépp di leen wax ni mboolem loo xam ne tënk nañ ko fii ci siyaar bi nañ ci fas ki yéene tënku ànd ci doon benn te gan yi nga xam ni danañ ñu fekk sa incha allah ci siyaar bi ñu yaatal leen ci liggéey bi waaye taxaw taxaw maam ñu taxawee taxawaayu euh, koo xam ne da ngaa am gan ngir teral ko kon ñu ngi ciy soññ ñëpp di leen ñu ngi ciy soññ mbooleem membre yi di soññ ñi nga xam ni eh, yàlla dogal na ne ñoo nekk ci section yi te jiite ko li ko tàmbalee Dakar euh, Diourbel Euh, ci euh, Thiès Sowal Louga Dakar cees euh, Thiès ba Sowal ñoo ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di di di sàkku ci ñoom ñu gën a waaj nañ gën a waaj te xam ne liggéey bi ñu ñu nekk nii yombul kon ñu ngi santaan ñëpp di sant mboolem koo xam ne teew na fi mboolem koo xam ni fekke woon na jataay bi ñu ngi lay eh, ñu ngi lay sant bu baax di ñaan suñu borom mboolem jéego boo xam ne jéego nga ko ñëw fii eh, ñëw ci jataay bii rek mu def ko aw yiw barke Serigne Touba jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. yasara lii mu yasirun asiri maxtaara waliya bila masiri wala laayinu li siwaaya mudbirab bima la tahriya du moo dabarab محات واجعل مكاره الياء باقنا باب ذكره وهو الياء أنه رضيت وواني رادي بلا مكارع ولا أمراض ردى لغير جاتي سيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغير جاتي لحين يسوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي زفر وزفر نبي توفيق هاد قاد الإلهام قد بدا يدي مال بام بدل لي اليوم برب قيب